alhamdulillahi alkarimi silmilan alastifadi bifurudin wa sunan سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني وهذا لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عباد الله ñu ngi ñëwaat ci 2483 di wax ak suñu mbokk jullit ginnaaw buñ sante suñ boroom wéetal ko ci màggam gi ak kaweem gi kennal ko ci xewal yu bari yi mu sëmbatal ci jullit ñi moo ngi ni moom rekk yàlla di seede ni seydina muhammadin alayhi salaam moom rekk mooy ndawam moom la tànn ci kanam mi def yépp mu sës ci moom mooy bunt bi di jullee ko sëlmal ci moom ak i saxaabaam ak ñi ko topp jaar ci ngirëm mi ba ilaa yawmiddin di dékk suñu bopp jullit ñi rawatina ndaw ñi comme ni mu waxe waxee ragal sunu boroom ci moytu tereem yépp ndax fa bi taq wallahi tazkul amalu wa tunaalu darajaatu kon warxaba fi ma indahu fa biyadihi alxayru wa huwa ala kulli cheyin qadir ittabiu ma unsila ilaykum min rabbikum waaye wala tattabiu min dunihi awliyaa ragal yàlla mooy tax say jëf sell ragal yàlla ci la ñu amee ay darajaat darajaat mooy nga bokk ci saalixina yi bokk ci muqarrabuuna bokk ci muflixuuna yi bokk ci bokk ci bokk ci gis nga ko ñooñu nag ku ci bokk rek eh, yow mal xiyaam bu boo dekkee rek di nga ne man ndekkete nangam man ndekkete nangam ci am goo am sens ndax da ngaa ragaloon yàlla ci kaw suuf nu xemmam li fi sunu boroom lim nu digg te nii munu wére ni ay nit lanu am nanu am nan xel noon lanu wére ni sunu boroom lim nu dig lépp am na nu bañ yam yem ci gëm ko rek waaye sàkku dox jëm ca suñ dund gi yëpp lu jeexal ko ci loolu fa bi yadil xayru wa ala kulli shay'in qadirun lu baax li jullit war a bëgg lépp lépp suñ boroom yombal na ko ko te moo ko moom te mooy exécuté yépp suñu boroom amul suñ loi yi ñu am nga xam ne da naa fii day ah, benn xaaj bi état ko yor benn xaaj bi justice moo ko yor benn xaaj bi assemblée moo ko yor gis nga ko suñ boroom amul loolu al jëm boroom bi minel bidaaya ila nihaaya lépp lépp moom la kon xeet bi ñu ne société bii ñu nekk gëm leen ni yéen la yàlla wax ni antum xayru ummatin uxrijat li naas yéen gën ci xeet yi fi yi ma sàkk gun yéene xeetu mujj wi kon danoo war a dawoo sunu diine danoo war a sagoo sunu sariya bi si ñu koy defee nag mooy wéetal sunu boroom def suñuy sàppe mu nekk genn rang tàppe xol yi ni ko maam Abdou daa waxe radiallahu anhu génn ko ci lépp luy ndëngate luy caay-caay luy ay neen luy ay ay tàqaliko luy ay parparloo lépp loo xam ni ak déngat la setal ko soril ko lool lépp lu yées waaye teg ko ci siraatul mustaqim mooy tax mu am ci tedd nga yi am ci eh, eh, eh, am ci nuñ ko nuñ ko wax kaaraange yi am liberté gu ma goo xam ni mooy gi sare ay jàngale waaye du liberté gii nga xam ni moom la àdduna ñëw dina ko waxte dañ ñuy dañ ñuy nax lañuy làmbate biir saa ñu la waxee égalité liberté émancipation de la femme nangam nangam démocratie yàlla xam na mondialisation yëpp yëpp nari neen nari neen lu dul jariñoo Afrique jariñoo population Afrique suufus Afrique géeji Afrique ñoru leen ñoru leen de téeméeri téeméeri société yoo xam ni jóge ci mel ni réew occupé seen réew 1960 ba léegi di ko màng di ko jariñoo fan ak ak ñoom li ñuy dund ak noonu dafa sori sax humanisme mbokk yi muy ak nite al insaniyatu kon liberté yii yëpp ñuy wax nii kin ko mën a jox mooy yàlla tëral na ko teg na ko suñu loxo noo koy nag jë jëfandikoo ku togg ba mu ñor mu jox la xam li gën yow mu toggal la ko yow yoway tibb won yow sàq mi ko defee mu resal ko mooy diine sécurité diina yi kóolute mooy sariya bu maandu bi sariya bi am yërmande mooy diine ji suñu borom matal te duutu ko wàññi mukk mukk mooy diine ji mu gërëm judul moom gërëmu ko alyawma akmaltu lakum diinukum ay diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum al islaama diinan al maida ay boobu bu saxal demee suñ boroom waxee ni ko bisu ni ki jii matal naa diine ji nag mottali naa ko ma sëmbërtal ma sama xewel gii li ma gërëm léegi daal jenn diine moom laay reconnaître mooy islaam wa raditu lakum islaama diina allahu akbar gis nga ko kon lu jiitu muy wax boobu wax na waman yabtaxi xayra islaama diinan falan yuqbala minhu ku jël jeneen diine ju dul kenn du accepter kenn du ko reconnaître gis nga ko mbokk yi am na loo koy fii ne boo ko fi bëggee état dong moo koy reconnaître mu valable yàlla miy reconnaître nag nee na jenni diine laa reconnaître na fukki junni diine nekk fi waaye inna diina inda yow julit li nga am sariatullah hiya man hiya al manhaju l xaq allati yasulu l insaniyata min yëngu ca wa yujannibuha masaliq charri wa wa wa nawacha al hawa te mooy chifaau sudur waaye mooy xayaatu nufus waaye mooy wa muinul uqul saraa suñ borom bii daal bi nga xam ni mooy dëgg xam ni mooy mën a aar li ñuy wax ak nite waaw charia kese kese kese mooy méthode bi nga xam ni bu ñu ko appliquer mu mu jag ëpp doole amatul mun som tooñ ci kaw suuf tuur deret day jeex jël alali jàmbur ci méthode yii àdduna di ko doxe léegi réew yi am doole di am doole te ñi ngi jële doole ci réew yu ndaw yi jeex ci biir Sénégal am kuy liggéeyloo ay nit di leen exploité day jeex kuy mbubboo diine eh, ngir di ca dund day jeex toog muy dox lii am yu ci bari feeñ ci bi état bi toogee eh, yooyu day jeex ci côté diine bi toog muy dox moom it day jeex te mooy feggu ay wax mu ngi jóge ci bànneex ak mooy yàlla mooy saafara xol yi nag mooy safa asudur waaye mooy tax bakkan yi nag sell muy taskiyatu nufuus waaye mooy jubal xel yi orienté ko ba mu doon xel mu nite ba tax xul euh, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu huwa xayrun mimma yajmaun suratul junus ma kii kon Eh, lii nag bu mënee am ci jenn diine loolu wërta wërta sax nit di laajte awaa ah, ji diine naka la mën a complété mel nii waaw nga man baauha wa masdaruha kitaabullahi tabaraka wa taala wa sunnatu nabiyihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam te kitaabullahi ah, asaasu diin wa masdaruha at tasria du jaaxal kenn gongikukaay ba fa mu jógee fa mu bale mooy alxuraan mii téere téerab yàlla tabaaraka wa taala su nes yeneen dem bii moo ko jox mu ñëw jàngale ko ci biir téere ba téere ba wax nun ni kii di leen jàngal téere bi kat laa yantiqu anil hawaa du wax rek ngir eh, na wax ngir lu ko neex in huwa illaa wahyun yuuhaa seet téere boobu mooy kenoy diine ji mooy gonkikukaay ba mu doon ni yërmande yàlla ñeel aalam bi yëpp nag ku ci génn yaa ci génn sa bopp bu làq lépp loo xam ni mooy wàllu tasria nekk yërmande mboolem jami al awaali bi indi usulu saria wa xawaiduha ponk yaa ak cëslaa yëpp jikko yu mat sëkk yi orma yu mat sëkk yi yamal gu mat sëkk indi ay masaalik yoo xam ni xeet wu ne bune bu ne jamono ju indi na ay masaalik yoo xam ni ci la ñuy jaar indi ay ahkaam yoo xam ni day méngoo xawaadis yi jamono ju indi ay xulul yuy mën a résoudre masaakil yépp waaw akbar waay waaye waay waay jullit yi delluwaat ci njàngalem lislaam ki jàng tubaab xamul dara ci arab sax mën naa dellu ci lislaam fi mu toll nii ki jàng espagnol noonu langue yëpp bind nañ ci xamle lislaam mbokk yow mi ni yii mënu jànguma ci benn del diglu diglu rek buñ la naa alquran bokk na ci liy musal ci nit seytaan mu metti la lool ndax jàngoo alquran dee ko diglu sa diglukaay bi bul xëy mukk te diglu waa alxuraan donte da ngay wér de sax diglu na ngay diglu alxuraan bokki di tudd yàlla foo toll yaa ngi njàpp sa kem kàttan waaye fonk dem jàkk lool mbokk yi ngir <coughs> baal bu ki diina ju mel nii yàlla jox la ko nga saggana sàggana sàggana bàyyeeg sa bopp iblis ah comme ni imam Shaafi waxe rahimahullahu rek Shaafi bi di wax ne alkitaabu kullu shariati wa wa umdatul milla mooy téere boo xam mooy lépp sharia mooy téere boo xam ni mooy kenoy ngir mi wayen bool xikma li ñuy wax xikam fan lay bale nee na ci téere boobu wa ayatu risalati waaye wa nuurul basair wal absar allahu akbar al basair wal absar wax ju rëy la tariqun ila ila llahi siwa amul wenn yoon wu nit mën a jaar am ngërëmul yàlla am reconnaissance ci suñu boroom xam suñu boroom nen lul ci téere bi wala najaata ila liman istadaa bi huda amul fu waaye mën a jël leer lu dul danga koo leerlu ci ci njubug téere boobu yaf settiti yaftahu maxaalixal xulóob mooy ubbi lépp lu tëju ci xol xol bu tëju mooy xatam la ala xulóobihim yàlla tëj seen xol leeru ngëm nekku ca nee téere bi mooy ñëw ubbi xol boobu su ko ubbee nag leer gi mën caa tàmbalee dugg mën caa tàmbalee dugg waaye ab tax rekk nga xam ni kenn kenn yettu ko mënoo caa sotti ndox mbokk yi ba dugg ci biir xaal bi nga bëgg xaal bi tojoo xaroo ko sotti ci ndox ba suba lu ndox ma bari bari bari man ngaa sotti ba ndox wër ko ba muy tëmb ndeem dina tëmb waaye xaal bi moom dara lu ci dugg kii nag mooy ñëw kon daal di ubbi ca kaw daal di koy wutim mi wutti mooy génne li ci biir lu xong li ba mu set wicc mu def ko ndox ba mu fees dell kon ndekete leeru alxuraan ak njubam mooy ñëw ubbi ci kaw xaal bi génne la ci nekk la ci nekk mooy réere suñ boroom bokkaale ko euh, mbég moo xam ni seytaane ko def ci xol rëy gëlëm al yooyu mooy yi ci biir da koy génn nag seetal ko bu baax a baax waaw mbokk yi téere boo xam ni fii na bu man xam la ko Eh, dangay ngay ñëw juddu tàmbalee jàng nekk mag dem ba mën a firi alxuraan gis li weesu woon lépp alxuraan daal di koy résumé tàmbale ko ci aadam allahu akbar wa xayru ma baadakum wa xabaru ma baadakum nga xool li nga jëm mun la wax la ko ba nit ki di dugg sawara wala wala àjjana la koy yóbbee ak na muy def ba am àjjana la koy xañ okuma bay na kum nga xool actuellement sa giirug dund li ngeen war a dund lépp alxuraan leeral na ko ñetti état bi ci avant après ak actuellement u faslun laysa bil xasd allahu akbar duy caaxaan de man tarakahu min jabaarin qasama koo xam ni dëjër la moo tax nga bàyyi ko ah waaye waaye ñàkk nga waaye wa man ibtaqal huda fi gayrihi adallahu llah faayu jële ji njub du ko fa wuti woon ginnaaw alxuraan yàlla sànk na la yàlla dafa maandu bàyyi la nga sànku wu hablullah ilmatin mooy buumu yàlla gu dëgër gi yàlla ni waatasimoo bi xablillahi jamii'an wala tafarraqu wa nuuru ul mubin ngeen mooy ci buum gi di buumu yàlla gu dëgër gi mooy alxuraan te bu leen tàqaliko mooy leer ak suñu borom gu gi zikrul xakim wa siraatul mustaqim mooy wenn yoon wu jub bi bi ngay ñaan sa borom bus wax ko fukki yoon ak di nga ko wax xanaa di nga julli fukki rakk ak juróom-ñaari di wax ni yàlla ihdina siraatal mustaqim yàlla teg nu ci siraatal mustaqim ba noppi génn nag teg sa bopp ci siraatul jaxim yoon wuy jëme nit sawara wala yaasu billah li ci nit di nettali lépp dëgg la ku ca àtte woo ku ne maanu nga ku ko jëfe ku ne ñu fay la ku wooti jëme ci kooka mi ngi jëme ci nit ñi ci siraatul mustaqim mbokk yi mbokk kon nu wàcc sunu kàddu waxtu wi dab nanu wassalaamu aleykum wa wa barakaatu alhamdulilah alkarimi silmilan ala sihali bi furudin wa sakartuhu lianu xad sahani liwatani bi nafa